franchement am na loo xam ne fii am na suñu ñoo xam ne soxla benn cent mille franc rek njàpp boo ne ko joxoon ñu ñu liggéey. joxuñu leen ko. c'est vrai mais lool jël ay mobiliser autant d'argent bu dem yóbbu benn maire Maroc Fès. Mm. d'accord c'est bien. mais loolu dañ eh, gaw ma je vois pas ce qu'il a derrière et puis ak ni ñu ko folkloriser mm-hmm. c'est pas intéressant alors que tey muy loolu di lii parenthèse la mm-hmm. loolu ñu defal maire bi ñu dafay dajale ko xaalis mm-hmm. yóbbu ko mais pourquoi defuñu ko ci kii ba pare nag amuñ ñu jàng daw caméra yi tuuti. daw médiatisation à outrance. Mhm. di am ay combat yoo xam ni ay combat de principe la. Mhm. mu bañ a nekk ay combat yoo xam ne xool tey sànq maa ngi xool ñoom ñëpp ñu ku ne di buuxante di xool ba euh, caméra yi fan la féete pour feeñ. ñu njëkkante di buuxante <laughs> non xam nga xam nga xam nga yooyu. finalement c'est ridicule. non c'est ridicule. après euh, euh, loolu moo si nekk mooy xoolal kii Fatima Dione on l'a oublié. Mhm. on ne parle plus de de de l'autre de Fatima Dione. Mm-hmm. on ne parle que de la Amina et tout mm-hmm. alors que Fatima merci bébé alors que euh, la, la petite Fatima mooy ndeyu mi liggéey. mais elle est passée à la trappe. Mm-hmm. ñu jël yëpp yëngatu ko ci Amina ak euh, euh, euh, xale bu jigéen bi ñu porté bu ñu porté peut-être dama nekk si réseau bëgguma tudd benn tur ki ñu porté ki ki ki géré page xale jigéen yooyu. voilà ñu naan waa doo ci wéet doo ci lii doo ci laa doo ci nee doo ci nële dégg fàtte ndeyu mbili gi. ñuy liggéey si derrière euh, ces victimes. voilà voilà donc yooyu. Euh, euh, et puis man dama fàtte turu yooyu mais je pense que fii amoon na fi tamit benn genre observatoire xaw ma lan loo xam ne dafay venir en net ci ñu mel ne ay Fatima yooyu. Mm. ñooñu doo leen ci dégg. mais tout ça show bi ñu def nii mais j'ai envie de dire c'est quoi projet ça profite à qui. Mm-hmm. ah kii léegi nag après yooyu yëpp dafa tax ba ñu jigéen ñi ñuy gën a ñàkk fayda parce que les gens passent à autre chose. c' vrai c' vrai euh, euh Fatima euh, John mun nañu wax ne c' est juste la partie visible de l' par rapport ak euh, yi nga xam ne xew na si élection Miss Sénégal wala sax bu ñu demee loin même dans les entreprises dañuy gis ne Sénégal yi les les femmes dafa am ay propositions yoo xam ne dañ lañ koy def. Mm-hmm. ku mel ni comme Jamra moom dafa porter plainte pour ñu dissoudre carrément li nga xam ne mooy organisation. Miss Sénégal si euh, si Sénégal est-ce que da bokk si ñi nga xam ne euh, dañoo jàpp ne Miss Sénégal amul lenn lu muy apporté par rapport à la culture sénégalaise. non man euh, du rek Miss Sénégalaise man dafa yu bëri yoo xam ne te encore une fois dama bëgg vraiment nopp yu baax yu déglu. dañ ma dégloo xel bi ma dégloo xool Euh, euh, xëy na li ma ñaaw modde euh, moo tax <laughs> man c'est de beauté là ça m'a jamais intéressé soo ñaaw waaw mais xam naa dina am ñu ne dafa dafa ñaaw modde vulgaire tax mu koy wax mais ce que je veux dire honnêtement waxuma sa Sénégal ma mm-hmm. moi je ne vois pas ce que ça vraiment lan la mën a yokk ci réew ci économie réew lan la mu mën a yokk nga jël ay jigéen dégg nga bu dee mannequin yi ay porte-manteau lañu mm-hmm. rien d'autre man lool nag dugal naa sax ay ñoom nawi kàmbal yooyu man ñooñu j'ai jamais compris. Mm. moo tax regarde euh, euh, comment elles vont finir après. c'est vrai ça c'est euh, ñooñu ñoo yàq combat jigéen ñi. Mm. parce que la femme a plus que la beauté physique. yaa ngi dégg mm-hmm. la femme a plus que de longues jambes. Mm-hmm. la femme a plus qu'un beau faciès. Mm. la femme n'est pas que ça nous ne sommes pas des objets. comme ça à admirer ou bien comme une plante verte boo xam na nga jël teg ko sa bureau wala teg ko sa non on est plus que ça donc euh, mannequinat yooyu yooyu yëpp c'est quoi en fait tu es là euh, nga ñëw ñu ne ah oui euh, Ndiap tu as un bon minois tu as de longues jambes tu es tu es super belle tu es ceci tu es cela non yow tu vas vendre tu pourras vendre magnifiquement mes créations on te demande mannequin yi est-ce dañu leen waxloo kenn waxloo leen mm. bu dee bala ci miss yi kenn waxlawul leen mi leen demandé et euh, eh, il faut que tu aies un un profil atypique mm-hmm. dégg nangam nangam ñu jàngal nga di filer tout ça ñu teg benn tribune nga ñëw yéeg taxaw jaayu parce que da ngay jaayu. Mm-hmm. après loo dégg coulisses yi ay drogue ngay dégg. Mm-hmm. ay affaire de mœurs. nga fay dégg parce que tu te vends au plus offrant. da ngay wane li nga am. léegi nag fii Sénégal bala maa dee métier certes mais des fois dañ ciy gis euh, euh, c'est un euh, am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dëgg-dëgg jural na leen lu baax mhm. ñu ngi ci dugg nañ ci ci yiw def ci def ci wax dëgg yàlla lu baax waaye boo ko boo ko doon xool bëriwul mhm. léegi nag bu ñu ñëwee ci affaire miss yi miss yi yaa ngi fàttali affaire culture générale ñëpp ñoo reetaan les gens se mhm. parce que déjà on leur pose des questions tellement idiotes tellement terre à terre et ils sont absolument incapables d'y apporter une réponse euh, ne serait-ce que lu xaw a nekk sax euh, lu xaw potable tu vois ce que je veux dire donc euh, euh, maintenant ñu ñu ñu ñu ñu ni leen léegi waaw ba te bala maa dee ñuy ñuy seen bopp naan waaw mii si dañuy kii dañuy jaay Sénégal non seen bopp la ñuy jaay parce que le Sénégal n'a pas besoin de de benn miis bu ñoo taxaw fi naan day jaay Sénégal lan la jaay ci Sénégal xoolal da ngay ñëw toog solu ñu ah, léegi sa def il paraît que bàyyi nañu ay may damay man du ma seetaan yu ñàkk fay na yooyu amatu may damay mais xool da ngay ñëw défilé taxaw kii nga war a sa njool wan sa taar léegi ñan ñoo toog ci public bi di seetaan ay paa yu ñàkk fay la des ñuy yuut di la xool di yuut di tànn seen xale ñi di salivé di xool pour les babines <laughs> parce que xool comme kii benn monsieur moo romb xam nga benn michu yi jigéen ñi ay michu ñoo romb bii michu ginaar bi michu poulet ñu xool michu ba gën a duuf bu gën a nooy ba gën a nangam ñu ngay romb di defee di wane sa bopp di jaayu léegi boo paree kenn ñëw am na ko xës wax sax mm-hmm. glissé la benn benn numéro téléphone nga woote mais donc kooku ba loo jaay jaayoo dara jaayoo dara donc en réalité réew mel ne Sénégal fi réew mais Miss France Miss France sax. Mhm. chaque jour te xool foofu c'est encadré. yamul ak fii. Mhm. te Miss boobu sax man ci li may gis ci buñ ko sacré ba pare reportage yu ñuy def euh, ci 7 à 8 tu vois que cette Miss là quand au moins am na wóor ba pare ay maire yoo nekk si ginnaaw c'est toute une institution. Mhm. tu vois elle fait des choses elle est en représentation. Euh, elle accompagne tout même si ça reste vraiment futile. ça n'a ça n'a absolument aucun intérêt pour l'économie d'un pays. en plus ñoom dañ koo adapté ak seen réalité dëkk seen seen tey ji bu ñu jëloon suñu mii si euh, adapté ko suñu aada ak mu tamit xam nga tey ji xam nga tey man j'aimais bien maa ngi ko nuyu sama grand Aziz Samb mm-hmm. quand il organisé quand il organisé les Oscars des vacances mm-hmm. euh, Miss Oscar tu les voyais dañuy ñëw euh, wax ci benn culture benn dëkk mm-hmm. def ay affaires yooyu. au moins ñu wane seen tradition wane seen affaire tu vois ce que je veux dire. Euh, tey jii euh, amoon na benn époque y avait Miss Jongoma. moi que j'aimais bien mais après c'est c'est devenu n'importe quoi. tu vois ce que je veux dire donc bu fekkoon ne au moins ñu dañu ko jël adapté ko ci suñu culture ñuy wane. Euh, li rafet ci culture basari yi ci kanam ci culture séeréer mm-hmm. par exemple séeréer yi y a y a énormément d'ethnies chez les séeréer mm-hmm. de même que chez les fulaar chez les chez les wala ñun chez nous xam nga ñuy indi euh, les grandes ay ah, juste yëpp nekk tenue traditionnelle. Mhm. par exemple ñu bannir complètement les tenues machin ba pare. européenne euh, voilà ba pare déjà la Miss Sénégal euh, boo gisee nu muy mel. voilà mais mais non européenne mais mais mais mais non tubaab yi la non non non tubaab yi la karaw yi accoutrement bi après dégg naa ñu nax sama naa noonu bëgg ñu xeesal mais li ñu am c'est que xeesal. Ah. bëgg ko xeesal waaye yaa ngi teg cheveux gudd. Ah. teg faux faux mais kooku kooku culture ak ban valeur la réalité xam nga moo nekk dëgg lu nekk dëgg mooy futilité yooyu yëpp dañ ko fa repousse amul ñu benn njariñ lu di yàq suñuy xale yàq suñuy doom miss mathématique mais miss science xool miss science bi kenn faalewu ko amul amul dara mm-hmm. les gens se bousculent ci affaire ñàkk caaxaanare yi mm-hmm. ay miss Sénégal ak yooyu xale yi di yàqu léegi nag parents yi aussi man man na loolu yëpp parents yi la parce que parents yi tamit am dafa am parents yoo xam ne euh, seen vie la ñu bëgg euh, seen doom vivre ko mm-hmm. la ñu bëggoon a dund te dunduñu ko lañ jox seen doom mu dund ko. Euh, ak tamit ñoo xam ne ay parents yoo xam ne qui sont dans les difficultés ñoo gën a xam ne seen doom mise bi muy nekk du ci am tous lu du ay far yu baax la ci am ak <laughs> ay ay nangam ñu dugg ci pour espérer des lendemains meilleurs. mais finalement bu fekkente ne euh, euh, celle qui qui promeut cet événement là derrière. Mm-hmm. je les guillemets je pose des va vendre ces filles là la complicité ba tey des parents mais c'est finalement on est où donc état bi encore une fois bu ñu nekkoon daanaka te xoolal euh, euh, njàpp xoolal le mutisme des euh, de xam nga jamono léegi nii tellement Matar Matar Matar Gueye sama grand bi. Mm-hmm. tellement Matar Gueye il moom tamit dafa dugg suppu kànja bu ne mi nga cax soos bu nee ma nga cax. mais foog ma wax aussi. waaw mais ma xam nga man teral mu wax mais. xam nga li ma wax gis nga gis nga ñaar. Uh-huh. gis nga nit il nga xam nga xam. lan mooy sa combat. il faut il identifier sa combat lan la. Mhm. mais moo nekk chose bu ne nga dugg ci. Mamata Gueye mën ne wax naa ko mosoo naa ko invité ma ko man grand je le sama sama xarit la mhm. euh, de nit ku baax la aussi mais dama ne euh, mu munu fi nekk rek xëy sa bët tam nii comme ça. Mhm. nekk fi benn censeur. censeur boo xamante ne nii chaque jour Mamata Gueye da ngay gis média ay viol yooyu du ci wax. ma xam ne lu ko intéressé. xale bu jigéen bu wane weenam ci série nangam ma ne ko man maama taa man xam pourquoi yow tu passes ton temps à regarder des des séries télé yoo jigéen ñi wane seen taat ak ñi wane seen ween non da nga war a am bëtu garmi nopp garmi euh, cet effet de miss là euh, dugg na ci mais du sax am après le euh, je veux dire aujourd'hui Euh, son combat peut-être il est noble mais tellement dafa am ay suppukaay njëkk ay kenn il est dispersé il est partout et nulle part à la fois et puis quelque aussi il en fait un peu trop ce qui veut dire que euh, euh, finalement les gens voilà ils en rigolent alors que c'est c'est sérieux donc à un moment donné il faut qu'on arrête les frais quoi mm. c'est-à-dire à un moment donné mais il faut carrément qu'il y ait quelqu'un ben qui soit là pour dire écoutez ben stop il faut arrêter <laughs> Tout à fait. Juste rappeler aux internautes, euh, yéen a ngi suivre seen émission le rendez-vous de